Kër Serigne Touba, premier jour di 18 Safar. Nous sommes à la résidence de Pikine. La famille se prépare activement pour l'événement. waa fii ci Pikine yi moom ñi ngi ci wàccaay ndax ñi ngi ci wàccaayu màggal ndax bu àllarja ji bii di jëm ñu jëm bu delfee fii la ñuy amal fii ziar bu mag sëñ sa deex mi moo fi nekk Kër Serigne Touba. safar gi it chaque jour it murid yi daan koy màggal. ndax tey le premier safar naan nit ñi premier bis bu njëkk bi am na ñeneen ñi ko njëkk jël di ko liggéey waaye teewul chaque jour fii dañ koy màggal bu ñu xëyee dañuy tàngal kafe yeeg xéewal yëpp addiyaal ko sëñ Tuubaa mi nga xam mooy borom kër gi. les responsables reviennent sur l'importance du 18 safar. màggal nag sëñ bi dafa nekk koo xamee ne da ko digle woon mu nekk loo xamee ne gannaaw bi liggéeyee liggéey bu magam boobu nga xamee ne mooy raybatul bahriya mooy tukkib géej gi. nga xamee ne nee na ci la ko suñ borom joxe lépp lu mu xemee moon lépp loo xamee ne itam moom la bëggoon. Ainsi, le comportement du bon mouride durant cet événement est aussi évoqué. bi mouride comportement ci Touba mooy ànd ak yar ak teggin ak dal ak kanam gu oyof ak wax ju lewet ak dal. nos interlocuteurs. Interpelle également les chauffeurs et les usagers sur l'augmentation des prix du transport durant la période du Magal. kon ku fay dem da war a xam ne fa nga jëm dëkkub ragal yàlla la waaye ñi nga xamee ne itam ñoom ñooy dem safoor yi ñu def ndànk-ndànk rek comme na ko suñ faalu code boobu suñ faalu joxe woon ñu jëfee ko nga xamee ne da ngay def ndànk-ndànk. cër ba nga mën ko lool ci nga mën jaamu yàlla du doon événement day jot xamante ne loolu amul tawféex li ci gën mooy nga liggéey ko liggéey bu sell.